يا दीवीर बे साईर कॾहिं जय दीन साई रीर या दीर हज़ूल दीर के जय दीन बजूल आए घर व साइ तॾहिं तॾहिं धीरो बाजू आयोर या घर वेसा साहेन ज maa ngi lay nuyu di nuyu délégation bi nga xamante ne ñoom laa àndal mënuma lim ñëpp nag waaye dinaa sant gërëm xale yii nga xamante ne ñoo topp ci sama ginnaaw ci ndigal monsieur le maire Jean-Marie Maron ñu ñëw uyu si njiram yi nga xamante ne suñu doom la suñu àndandoo politique la boo gisee ñun ay magum jëmu ñu bari suñu lal yi ñëw toog fii ba heure bii monsieur moo ñu ko jaral ak ki nga xamante ne moo yëkkati teraanga bi teg ko ci loxo monsieur le maire muy njira kon njira ñu ngi lay sant di la wone teraanga bii nga jox monsieur le maire nekk na loo xam ne saf nañu te saf na monsieur le maire mi nga xamante ne moom nga ko jox bu sañoon nag nee na dina fi teew waaye jaam ak pexeem yàlla ab dogalam ndax démb heure bii fekk na ko màkk ko woon mais dañ ko oone ko dafa am réunion tey ci ci bi samedi bi moo tax mu delluwaat mais bu sañoon day ànd ak ñun moo tax ñu yemale délégation bi mu toll nii parce que ñëpp xam nañu Maka woon Maka woon bu ñu indi woon suñu délégation bi ñu war a indi kon defe naa ne yëf yi dina rëpp dina xulu kon monsieur le moo ñu ko jaral lu tax mu jaral ñu ko dafa nekk un maire exemplaire maire bi nga xam ne moo gën a yaru ci maire Sénégal yi laa wax ñëpp xamee nañ ko ko président Macky Sall moo ko ko tuddee maire bi gën a yaru ci biir Sénégal li tax dafa dal dafa teey du digle du dig population bi loo xamante ne munu ko lépp loo xamante ne dige na ko daf koy joxe te def na fi ay réalisation yoo xamante ne ñëpp gis nañ ko monsieur le maire bi muy ñëw fii boobu defe naa ne dund mar nañ mar nañ bu baax a baax a baax a te fi mu nekk nii ndox maa ngi baawaan monsieur le maire bi muy ñëw fii presque ñaar wala benn école lañ clôturé woon fi mu ne nii premier mandat ba clôturé na 23 écoles monsieur le maire bi muy ñëw fii boobu tali yi bariwuñu ci biir dëkk bi boobu oto yi sonal nañu amuñu doo daal boobu poste de santé amul ci biir Màkka woon poste de santé bi tabax nañ ko boobu Màkka woon amoon na tuuti électrification naa ne commune bi yëpp tuuti électrification la am mais fi mu nekk nii daanaka benn dëkk rek muy Palado defe naa ne moo ñu dese ci commune bi pour électrification donc ma yemale fii cadre bi parce que li ma bëgg a wax yëpp monsieur le maire xajul fii li duuf ci nag bi yëpp xajul ci cin li kon njëriñ sant nañ la gërëm la la ci teraanga bii nga jox suñu maire suñu maire yi tamit sant nañ ko bu baax a baax defe naa ne population màgg ko woon ñu koy ñaanal moo xam fi mu bëgg a yem yem ko fa yàlla yemale xale yi nga xamante ne ñooy ak ñun ñu ngi leen di ñaanal avenir boo xamante ne bu mucc ayib kon mbooloo mi maa ngi leen di jaajëfal di leen nuyu di leen sant di leen jéggalu bu baax a baax te di leen jéggal wasalaam. ñu koy ñaanal ca kaw ca kanam yàlla toog ba nekk dégg merci beaucoup. salaamaaleykum wa rahmatullah. population bu Mbacké woon ñu di nuyu ci nekk sa délégation bi nga premier magistrat de la commune de monsieur Jean-Marie Maron Nous ngi ak euh, suñu kilifa di troisième adjointe au maire Adja Ndiaye ànd ak conseillère soxna Oumy Diouf nek conseillère ci deuk bi ak toute la jeunesse de Makakawoon mais aussi ànd ak les amazones de Jean-Marie Maron pour soutenir ko ci bés bi nga xamanteni la lion, Njira Sall borom sal Ngari production moko ko donc par là je vous remercie au nom du premier magistrat de la commune de Mbadakhoune donc nous voulons lay remercier bu baax Ndira di la wax ne fi nga teg sa la parce que aussi monsieur le maire beaucoup de gens qui ont xamante dañuy valoriser l'expertise locale mais aussi dañuy accompagner les jeunes entrepreneurs et vous êtes une jeune entrepreneur te loolu ngay doxal lolo tax nga osé tëgg drapeau bu toll donc soyez en remercier comme naa monsieur le maire mu ngi lay remercier bu baax ci loolu di la ñaanal ci kaw ci kanam pourquoi pas dëwën nga tëgg stade Iba Mar Diop je vous remercie. dellu fa ci jàmm bu la dara wax di kontaan ko wala ñëpp ñëwuñu kon xam naa bu ñëpp la doon war a demee. Makebe jërë ngeen jëf xam naa ne li ma wax noonu ko ñun xam nañ monsieur le xam nañ li nga wax. parce que wax balaay neex nga am ay témoins yoo xamante ne ñoom xam nañ lu baax li ngay wax donc wax jooju noonu pour ñu déggal ko en tout cas ñoo ngi koy ñaanal fu mu bëgg a teg tànkam rek yal ko fay lu yóbbu te mu jikko jërë jëf ñu déglu leen